وليك يرجع الأمر كله لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعزيم سلطانك وكرم وجهك لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رددت لك الحمد بعد الرضا ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد رسوله المصطفى الذي أوتي جوامع الكرم والكرائم هناك الرسول الصادق وعلى آله تبيه الطاهرين وعلى صحابته وعلى الله تعالى عليهم أجمعين ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد mbokk jullit déglu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bu sant yalla julli sant yalla bu baax way sant yalla subhanahu wa taala bi nga xam ne ñu may katam ñu ko fekkee bañ dellu si di fataane fajar bi alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah wa abada alhamdulilah kaseeran way di julli si yéen tamit salaam salaam ak waa kiram ak saxaaba mi ak képp ku am yaa ngi topp sunna bi ilaa yawmil qiyaama di ñaan yalla ñu yàlla defal jamm yalla ñu jamm indoo ko fanaanoo ko yalla mi jamm jamm yalla ñu defal suto yokk ñu kata yokk ñu wéeram Nyufe katika ile katika bidami ya misafara ya yale yale afya juu gitu Allah hira yala yere mre yadre sembamen lera sembamen de sembamen mune karo de miru yali jana ne ndawi yala samari arri la hanif ya akdu lazi yala sirat mustaqim jalla zi fitna musiba wala shaitan warsa galen ham ham warsa galen ligi warsa galen ana do be ba jigani yala samari yala bolu yu defal yu rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنا وقينا عذابنا النار مكرنا في دار محمد صلى الله عليه وسلم بنو كلم بس ما قبل يا يلم يا لم يفك أجمع بري بري لبرين جامس يا الله يا لم يا الله سبحانه وتعالى نعوين سوا يسي يوم يا الله جعل يا الله سبحانه وتعالى دفر جامع دفر كمبول بني سام يسامع يا بودي يا الله دفر حيوان آدنا حيوان الله يرحمه سفر مكرنا في مكرنا يا في دار محمد صلى الله عليه وسلم يكون تني آية بين هم يقولون تفسير دمبا di yàlla subhanahu wa taala jagleel xéewal yi nga xam ne jagleel nañ ko julliti àllaaxira te ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu ñëpp yàlla ñu bokk si xéewal yooyu àllaaxira muy arjana bi nga xam ne yàlla ko dencal julliti waaye arjana bi nga xam ne yàlla am ko dencal ñi nga xam ne ñoo ko si àdduna di muñ yi nga xam ne nag yàlla xaraamal ñu ngi koy muñ di ko moytu waaye yëpp ñu ngi koy def te yàlla ta yàlla subhanahu wa taala si boobu si aaya boobu tamit ba léegi yàlla subhanahu wa ne وتلذ أعين أنتم فيها خالدون من تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون واو أرجنا بوبيا سبحانه وتعالى مره لبلو واي نما لبلو واي بوغا جسي باني لبلو واي بوغا ديغسي يو أك جاما يفاقي فوفو من واي نك وتلك الجنة واي أرجنا بوبيا نكالا يكو أمي يالا سبحانه وتعالى مره التي أورثتموها بما كنتم تعملون arjana boobu amee wuñ ko si alafodi de waaw bi yàlla di si àllaxira ak li fa nekk si ay xeewal li fa nekk si ay bànneex mu ne dee naka lañ ko amee du si alafodi de da ko liggéey fii si àdduna waaw ku bugg arjana boobu nekk àllaxira mbokk ñu fii ngay muñ muñ jaamu yàlla waaw muñ yi nga xam ne ay caaxaan la muñ si li nga xam ne lu yàlla xaraamal waaye nekk si li yàlla santaane léegi-léegi nga gis li yàlla xaramal bari ay bànneex lool bari ay mbég lool bari ay yoo xam ne dangaa ne ah lii de bakkan dafa bu waaye nag ndekete soo ko muñee am na lu la yàlla dencal loo xam ne moo daxa loolu foof ak loo mun a bànneexu fi si àdduna rek soo bànneexu ba pare lan nga see jëlee coono danga dem pati after pati bi lana xew coono danga dem fecci su paree lana xew coono subhanallah te doo fa jëlee dara doo fa jëlee yàlla doo fa jëlee baakaar la waaye xoolal yàlla subhana taala mu ne tilkal janna arjana boobu nga xam ne fan xéewal loo xilaat si bànneex ak jàmm ak xéewal fala nekka yàlla mu ne yéen ko doona nag bi maa kuntum taamaloon si li ngeen doon liggéey si àdduna fii waaw gannaaw bi nga liggéey la yàlla subhana taala bi wàcce liggéey àlaxira nag yàlla ne axakañ ah, kaay maa ngi la fa dencal xéewal bu bari bari maa kuntum taamaloon lakum fiha fakiyatun kasira ah, yàlla di wax ne nag bokk na si bànneex ya nek aljana mune lo ci meñentef lo ci fruit lo xelaat rek waaw ah, kasira yàlla mune parina. yep purkan pur pour kan pour yow mi nga nak, ya ngi dug aljana mune nak nag ha taqulun de ngeen see ba sour waaw dula musa sapi waaw way lo ci fruit ndik fi aduna fi léegi-léegi ñu waxtu bi lii mooy ñor waaw waxtu bi doo am lii waaye foofu sa arjana amut loolu waaw faakiha lu bëree bëree bëree loo bëgg rek yàlla subhaana taala akañ ah mu ngi la ko yombalal saay boo ko buggee ak noo ko buggee loo si beneen aya ne yàlla ne kutuufuha daaniya nga xam ne garab ya dañoo dañoo ñëw ba sa boor maanaam garab yoo xam ne nekku da ngay eeg wala di ut banta di dóor pour mu daanu déedéet dafay ñëw yóoru fi ni nga ko buggee ak noo ko buggee noonu la moo ñëwee si yow bon loolu mooy li nga xam ne xéewal yi yàlla subhanahu wa taala dencal julliti àllaaxira bon loolu yëpp war naa mun a tax nit ki jaamu yàlla fi jaamu yàlla bu wér ndax lan xéewal yi nga xam ne moo nekk àllaaxira te yàlla bu umpa kenn yàlla ñu yàlla subhana taala boole si ñi nga xam ne nañ am xewal boobu àllaaxira yàlla defal ñu ko defal ko suñu waajur waaye defal ko mboolem julit yàlla defal rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa axiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin